yàlla dogal nag waa yaañ amoon soxla nañu soxla bi ñu amoon mooy fii kët dañ fi am ay jafe-jafe matériel biñ ñu ko waxee ñu ne leen defar leen demande ngeen yónnee ñu ko bi mu indee bi demande bi ñëwee ñun waa Touba ca kanam bi ñëw rek ñu def dañu koy te jaarale ci yoon di ñuy wax procédure bi mu dikkee comité directeur ñun rafetlu ko bi ñu ko rafetloo ñu daal dina ay wa kon bisimilaay nañ ko def fekk waa commission sante ñoom ñi seen wàllu bopp saytu nañ ba xool ne lii lu war a mën a ne la loolu moo tax te ñun askan wi képp ñu ñor li képp koo xam ne bokk nga ci dëkk bi te bokk ci waa njabootu sëñ Touba gi ko mën a doon te njaboot gi bokk ci dëkk bi loo soxla te Touba ci kanam war cee mën a taxaw du xaar Touba ci kanam loolu mooy crédoom crédoom mooy moom mooy solution loolu la ñuy wax Touba ci kanam est la solution ngeen waxoon nañu ne nañ leen wutal benn table consultation waxoon nañu ne leen ñu wutal ah, ñaari table waaw benn table benn table accouchement waxoon nañu ne na ngeen ñu wutal benn pèse bébé waxoon nañu ñu wutal leen euh, tensiomètre ak euh, stéthoscope la xawma waaw mu ngoog moom la sete bind ah waxoon na ngeen ñu wutal leen armoire métallique pour bureau ah, benn fauteuil yu bureau benn table bureau benn pèse bébé ah, salier ah, oh, salter ak euh, chaise roulante ah wutal nañ leen ci ñaar moom chaise roulante yi ah ak euh, ban traverse pour pour euh, patients yi waxoon aussi ñu wutal leen pèse adulte waaw pèse adulte wutal dañ leen ko ak euh, benn liwu observatoire ñeenti liwu observatoire quatre lal waaw ak yu ànd ak ay matelas waaw matelas yi nag incha allahu rabi suba la ñuy ñëw parce que fii dafa xaw a dafa xaw a fees xaju ci woon waaw ak ak ak ak ban traverse yi waaye yëpp ñu ngi ci bureau ba mais suba chauffeur bi na ko indi incha allahu rabi aleykum wa rahmatullah Euh, sëñ Moussa Fall ñu ngi siyaare bu baax. di siyaare docteur Omar Sy ak mbooleem kilifa yi ñu fekk fii ci dëkk bi di yaañ ka di dëkk boo xam ne nii ku xam histoire da nga xam ne ci yëf yi lañ bokk ñoom. waaye dañ fay ñëwee ci tànki suñu kilifa sëñ Abibu Mbàkke Seex Amadu Fadal. ñi nga xam ne mooy responsabilité bi yilif Tuubaa ci kanam gépp ak sëñ Abdou Lahad Mbàkke Abibu mi jëwriñ ji ñëw fii ci turu président Abdou Fatah Gueye ak mboolem ñu coiffé Touba ci kanam yëpp ci salaire yi comme ni ko sëñ Mamoun Gadiaga limee délégation bi jëruñu ci dellu siwaat ndax sëñ Mamoun leeral na ko commission bi ñuy wax santé nag moo fi ñëwoon tey ci ndigalul kilifa yooyu ñu tudd léegi doon leen indil bagage yi nga xam ne euh, euh, dara tax koo jóg loolu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom la sëñ bi njaboote ak fu ñu fi mën a nekk rek te yii nag ñu ñëwoon fii ci post santé yaañ euh, yaañ ka bi doon ko indi si Eh, fekk si leen fi loolu mooy lii nga xam ne moom lañ la jébal muy muy bagage yi noonu ñu ko suñ maamun waxee daanaka jërut dellu si waat ndax fi jamono toll waaye daal ñi xamal ne eh, Touba Ca Kanam yitteem du leen lenn lulul eh, fas yéenee yitte yi xam ne moom la askan wi am ñu di ko di taxaw ak nuñ ko soxla ndax dara tax koo jóg lulut di laaj luñ man du ko def fu ñu gis rek. te ñun gis neen li ngeen def Touba gis neen poste de santé yi ngeen construit Touba. gis neen ne millions yi ngeen dugal ci poste de santé yi ba ci feebar bi nga xam ne moom la ñuy xeex nii matériel bi ngeen jënd di ko def ci population bi gis neen ko kon ku ne nen a ngi ñu xam ne lii nen la donc ñu ngi leen di tàllal loxo Touba kaa boo feel ñëpp ñu fexe ba fii ñu yokk ko matériel bi ñëw ñu affecté fi ay infirmier su ko defee gox goxaan yëpp dootu ñàkk waa bërëbu fajeekaay di sant nag sëñ Moustapha Ka parce que case bi bi ma koy wax dañoo toog ma ne ko fii dafa war a am case de santé yaakaar naa ne bi ma koy wax du man maa yëkkati xaalis jox ko du ma ba du ma paate dafa toog ne ma ah man ka damay ruuxa ruuxal fii te lu ma ci am dinaa ko tabaxee case de santé pour population bi parce que soxlaatuma oto soxlaatuma kër soxlaatuma dem màkka li ma bëgg nag mooy bënn teen nit ñi di naan ak barabu fajokaay nit ñi di ci faju loolu moom moo ma ko wax te it noonu la demee kon kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla may ko wér. dëkk bu ne nañ cey jiital Touba ndax ba ngeen di tudd Touba ca kanam ngeen wax kon fii Touba yaañ la ak Touba Boofel am na Touba Ndiliki am na Touba Yaari Afe lépp lii ñu fi indi kenn amagu ci woon kon buñ ko fi indee dëkk yëpp lañ ko fi indi kon ñoo ngi jaajëfal Serigne Abib Mbacke. mu joxal ñum nuyoom nag jaw ji nam sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Basir di jaw ji ne murit yëpp ndax jataayab murit kenn du ko toog di ko wax te kenn jiitalu ko ca mun sa nekk ndax yéen ci seen wàlla bopp yëtte yëpp dabu bégam dabu bànneexam dabuy ngërëmam moom rek ngeen di njëkkee ci su ngeen di wax kon moom nañ mën a def moom it dañ ko ñaanal yàlla nii ngeen àndee moom te déggoo moom yàlla na yàlla def ci moom sun borom bàyyi ko fi yàlla dox seen diggante mu gën a yokk gën a sakkan gën a barkeel te ngeen am ngërëmal Serigne Touba. gërëm nañ leen nag ci turu Serigne Abo boo demee sunu gërëm ak sunu cant ci Serigne Abibou na ca jot de ko xamal na ko dëkk bi yëpp sen xol set nañ dëkk bi yëpp it ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla def lii ngeen di liggéey yàlla bu ci saytaane amu yoon yalla bu ci njistal amu yoon yàlla na ngeen ci am it nag gërëmal Serigne Abibou bu ngeen amee ngërëmal Serigne Abibou nag yàlla na ngeen ci am gërëmal Serigne Bamba lii kàddu yu néew la yoo xam ne dëbb daaxe rek la Cheikh Ibrahima rek da daa dëbb daaxe ci weeru koor la amee ngërëm kon ku fi teew ku ne nag yàlla na sa aajo faju